réponse lañ koy mën a jox te buñ ci paree dañuy def conférence de beneen bi mooy que lundi. lundi waay am nañ édito comme fa yaa ngi fàttaliku édito commun bi ñu fi defoon. voilà mais am na ba édito boo xam ne déjà ñi koy bind ñi ngi ci. Mhm. commencé nañ ko bind dañ ko jaarale fu mu war a jaar dina saf sàpp dañ dinañ ko génne lundi incha allah journaux yëpp euh, rajo yëpp télé yëpp. génneendoo ko. est-ce que journaux yëpp wax jee ngi noonu la. <laughs> c'est ça le problème. mais boobaa nag ci la ñuy xam. sénégalais yi dinañ. sénégalais yi dinañ mën a juger. parce que nag mbir mi. qui qui qui fait quoi. voilà wax nga ko léegi médecins yi ba ñuy jàppee seen ñoñ ci saa si lañ génn. ñun nag quand même nag. ñu jox leen ay liberté provisoire. nañu reconnaître que ne on a failli là parce que biñ ko jàppee jour soir boobu biñ ko jàppee. au premier jour boobu lañu waroon commencer di yëngal di yëngal ba bañ koy bàyyi. Mhm. mais bon. mais euh, Georges tey euh, def nañu benn plan d'attaque comme ni mu ko waxee mais plan d'attaque boobu tout en sachant que tey jii on est divisé et très divisé même tey jii pour que bataille bi mun a porter ses fruits ci lan lañu ñu war a mën a jublu naam teg nañu li nga xamante ne moo di plan boobu. non bon plan d'attaque ou plan d'action man je trouve que c'est c'est un plan d'action très intéressant et très très stratégique et te gëm naa que ne buñ ko toppee point par point. ni nga ko waxee man je sais que tout au plus au bout d'une semaine alors les le camp d'en face va va reculer parce que quand même bon euh, plan boobu bu ñu ko tëralee l'affaire déjà elle est elle, elle est déjà internationale. Mhm. léegi euh, dans la revue de presse man j'écoute RFI le matin j'ai déjà entendu largement de revue de mhm. presse par rapport à cette affaire là. donc euh, ñu war marche euh, samedi. en France et un peu mhm. ah je crois que avec avec cette là tout ce bruit là. Euh, ça ne pourra pas continuer en tout cas l'autre côté ne pourra pas les autorités ne pourront pas continuer à faire mais sur l'international ça marche mmh. comme on dit la bataille depuis. d'accord mais au niveau waaw même même fii même fii tamit rek parce que euh, quand même c'est pas. raf dafa rafetul ci image du Sénégal c'est-à-dire Sénégal mënul targué wu d'être une grande démocratie une vitrine de la démocratie nekk euh, réew moo xam ne ku ko jiite de doon wax toujours ne man bëgguma am euh, bëgguma jàpp journaliste. Mm. en tout cas durant tout mon magistère. alors pour une histoire boo xam ne mais est-ce que xam nga ne. am na ay journalistes yoo xam ne dañuy am des problèmes avec la justice mais c' est pas dans le cadre de leur travail. Mm-hmm. doo gis benn journaliste def benn édito doo gis benn journaliste def benn plateau spécial. doo def benn journaliste jog wala mm-hmm. naan lii c' est une mm-hmm. injustice. parce que loolu c' est une affaire strictement privée boo xam ne ça concerne le journaliste. à à et le pose entière. mais wala sax mu opposé ko à l'État du Sénégal mais dans un cadre strictement privé mais dans l'exercice de ses fonctions ah je crois que foofu ñëpp si war a ànd te moo tax sax ban euh, li Issa di naan que est-ce que dina am ay tous les journaux nañ d'accord publier l'édito euh, man je trouve que édito bu amee lundi je crois que journaux yëpp seront obligés ne serait-ce que par acquis de conscience pour ne par acquis de conscience ñu bàyyi ko mu génn parce que tout simplement mhm. Mhm. personne ne voudra ne yow sa sa journal bi génnewul l'édito là parce que boo ko defee mais les gens ne sont pas ne sont pas tout de suite que yow soit parce que <laughs> si tu pas avec moi tu contre moi. <laughs> dafa lok ça c'est aussi simple que voilà j'utilise ces termes. tey Ibrahima Lissa Mame Birame Wathie qui envoie un message qui se propose d'écrire l'éditorial nee na loolu moom daf leen koy ñaan ngeen may ko éditorial bi mu bind ko. Mm, waaw Mame Birame Wathie dañ koy booleeg Momar Jong ak Momar Dieng. waaw ñi nga xam ne ñoom lañ sant ñu bind éditorial bi. voilà ñu nekk task force voilà voilà léegi kon moom. Uh-huh. Euh, soit mu jokkoo ma directement wala mu jokkoo ak Momar Diong wala mu jokkoo ak Momar Dieng. ku mu ci uh-huh. jokkool rek baax na. bu ñu génnee ñooy bind édito bi en contact tey stratégie de bataille pour amener euh, euh, ñu féexal ki nga xamante ne moo di Pape Alé Niang même suñu xamee ne tey instru instruction lañ ko yóbbu instruction mun na dure ba six mois tey ji est-ce que yaakaar nga ne suñ ci entrée de plein pied dina porter ses fruits ba nga xamante dinañ ko bàyyi ndax gis nañu de l'autre camp ni ñu braqué woo et bu fekkee ne yenn suñu ay confrères également ñi ngi yëkkati seen kàddu di ko taxé de politicien est-ce que état du prof ndollu ci loolu bon euh, c'est un double euh, c'est un couteau à double tranchant mais dafa am la nga xam ne la am na Issa wax na ko léegi mooy que la réaction a été vraiment molle man maa ngi fàttaliku man euh, déjà dimanche ci guddi bi ma eggee foofu yaay euh, policier bi ñu toogee di wax mu ne ma ñaanu ma yàlla nekk journal mu ne ma man su ma leen gisee ci télé yi ak seen journaux yi seen titres yi ngeen di bind man dama noon ne ñaanuma yàlla joteeg journaliste mu ne ma mais ce que je vois ici hmm. ça ne me rassure pas hmm. nii la ma ko waxee bien sûr quand j'ai écrit j'ai saisi les gars du, du ma expliqué leen affaire bi hmm. ñu ne ma non on suit depuis hier mais mu ne mais Pape ce qui nous étonne mooy que nous chez vous au Sénégal on ne voit pas ma ne ko waaw mais bon on a un petit problème dans lequel sur lequel je peux pas je peux pas parler avec vous mais au moins seen ngeen def benn réaction au moins faites quelque chose là. Mmh, ñu ne bon d'accord ils vont faire quelque chose mais ñoom li leen jaaxaloon mooy le manque de réaction ici. Mmh. Mmh. waaw man maa ngi fàttaliku man jour boobu bi ñu may woo may dugg ci benn rajo foofu Omega FM pratiquement pendant deux heures de temps on a parlé que de cette affaire. au Burkina pendant deux la réaction a été très lente. Mm-hmm. léegi nag sur le plan d'action ça peut marché mais ça dépend encore une fois ci entente bi nga xam ne mooy am autour de ce plan d'action. Mm-hmm. bu dee dafa am ña nga xam ne comme ni nga ko waxee nii ñoom jàpp nañ ni que déjà Pape bokkul ci euh, presse bi. ou bien génnee nañ ko ci. ils sont libres c'est leur point de vue. mais mais naka la ñuy def ba génne Fapal ci profession bi. c'est ça waaw moom ma ci jaaxal <laughs> mais mais déjà rek xam nga tamit c'est des voix qu'on entend qu'on voit tout le temps. ñoo toog di ko wax tey loolu. soo ko xoolee par rapport ak question awa bi laay wax quoi mooy est-ce que ça peut pas être un prétexte pour l'État en face ne que bon déjà moom ci biir dans sa corporation sax ñu ngi koy dingat mm. effectivement ça peut être un un un un problème mais une chose est mooy que si la réaction là ni ko lii sa waxee euh, déroulé nañ ko comme tel moi je ne vois pas de raison pour laquelle état bi continuer ou bien justice bi continuer di ko maintenir parce que aussi nañuy wax benn affaire Euh, la détention ça doit être une exception Pape mm. Pape Alé présente toutes les garanties de représentation ah toutes les garanties donc tey jii wax fa dëgg yàlla soo gisee même nga dégg keroog ses euh, avocats li ñu doon expliquer surtout maître Moussa mooy que benn moment il fallait que genre dafa mel ni c'était une affaire personnelle. mais c'est vrai. avec Pape Alé parce que boo xoolee les chefs d'inculpation gis nga le dernier chef d'inculpation nañ ma baal quoi. division de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. mais mais article yi ñu visé nag. mais c' une farce. mais ils sont emmêlés moom laa lay wax ma ne cest à quelque part. moo lay wan ni ñoom. c' dans la précipitation nañu def affaire bi ou bien c' pas tout bien réfléchi. non non c' pas précipité. Hmm? c' fait à dessein pour charger aale maanaam fexe ba nga xam ci ne liberté provisoire sax et et gis nga lu tax ma ne lii nii c'est c'est c'est commandité c'est voulu et juste pour nuire Pape Alé pour humilier Pape Alé ñun bi affaire bi éclaté lu tax ñu ne en fait aussi qu'on a qu'on a failli on a voulu être responsable boo xoolee communiqué déclaration bi njëkk a def on a surfé vraiment sur la constitution sur les engagements de l'État ak aussi sur les principes sacro-saints de de notre métier le procureur nous a répondu tic ñu répondre boobu nag dañoo waroon ñëwaat ñun suñu bopp. à la charge à la charge. foofu lañ fayiree. Mhm. defuñu ko mais dañu nekkat ibbi na brèche ñu ñu woo ko pour maanaam mën a négocier benn yoon la ñu répondre bëggatuñu répondre ba jamono ji tey mu fixé ñu rendez-vous tey 11h. Amady Diouf waaw tey jii pour waroon ñu gis yow ñu lay topp mardi ba nga yóbbu waa ji. prison tribunal mu war a jàkkaarloo juge d'instruction mu jàkkaarloo juge d'instruction mu wóor ne yow li nga bind obligatoirement mandat de dépôt nga bëgg ñu recevoir ci lendemain ba amul njëriñ. mais est-ce que tu que la réaction du procureur le procureur euh, la sortie du procureur c'était même pas destiné à la presse c'était destiné à l'opinion pour préparer opinion parce qu'on savait man bi ma gisee son communiqué mm-hmm. euh, quelques heures après j'ai vu le qui a pris la défense de l'armée et tout ça. Mm. cela xam ne la ça ça pas ça ne sera pas du tout bon. Mm. parce que là c'était pas des c'était pas des communiqués que soit bu procureur bu soit mm. bu euh, ministre de la justice. c'était pas pour euh, répondre à la presse parce que xamoon na que par A ou B la presse a commencé nañu def ay bruit et tout ça. fallait effectivement euh, les calmer ou. jox leen benn kii pour ñuy grignoter mais c'était surtout pour alerter l'opinion qu'est-ce qu'en sera-t-il wa wala lan la Sénégal yi di wax bu ñu jàppee Pape Alé mais est-ce que tey par noonu ils avaient boobu parce que parce que le lendemain le lendemain la presse mm-hmm. en tout cas a repris le donc boo ko déggee communiqué procureur ñu commenté ko largement alors forcément am na dina am Sénégal yoo xam ne vont se commencer à se faire une religion ne ah kon kii kat parce que xam nga fii boo nee euh, kii lu mu wax day yëngal réew day fragiliser l'armée day mën na indi sax guerre lu nekk kenn xamul mais euh, am na Sénégal yoo xam ne dans leur entame na ah kii kon kii moo tooñ àll parce que là mos ku ba kii ba daa bëgg taal dëkk bi donc mais xam nga Georges loolu bi mu amee dëgg la cap moo moo fi nekkal presse bi nekk association yi nekk ci presse bi yëpp mais pour man kenn ci presque bi muy yow euh, muy Moustapha Diop wala muy Babacar Fall wala muy keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen mënoon na bind mu tontu c'est-à-dire mbir mi bu ñu nekk cap rek la moo tax tey jii ni bi ñuy def réunion dañu woo ñëpp. foofu sax laa bu gën a dugg ak yow parce que teg ngeen benn stratégie boo xam ne pour mu marché tey benn Massamba bi nekk ci rédaction X di di présenter journal mënu faa ñëw di dugal édito papa Alé Niang mm. euh, di ko dugal ci journalu Medium wala journal boo xam ne presse papier la mu toog moom mën a jël décision bu est-ce que wax ngeen ceeg ñi nga xam ne ñooy gérer les rédactions pas sax patron yi ci kaw mais les rédacteurs en chef ak ñooñu noonu ba nga xam ne combat bi dina nekk ko defee dina réussir parce que booy yi nga xam ne ñoo ci nar a ànd ñoom lañ gën a gis ci terrain bi déjà ñuy commencé di manifester ak yooyu noonu mënu mënuñu dara ci seen rédaction ñu fa benn euh, kii bu ñuy def non mais boo xoolee tey li nekkoon euh, maison la presse ñi ñëwoon ci woote kap bi ñi fi ma nekk ñu presque des rédacteurs en chef c'est responsable de rédaction ñoo defandoo métier bi ñoo nekkoon ci terrain bi bi ñuy xeex affaire ma jàmbal bi ñooñu tey sont des directeurs euh, de de presse c'est des rédacteurs en chef et donc ñooñu je pense pas que ça pose Et les patrons de presse en cours aussi sont partie prenante. Parce qu'il y avait Mahmoud Ibrakan là-bas. Oui. Et Mahmoud Ibrakan, président CEDEPS, e moom dafa tawat mais war a fa waroon ñëw ci réunion bi moom it aussi mi ngi ci biir. donc pour vous dire que maanaam ñëpp ngi ci biir et gisuma la moo war a mën a tax nit ñi bañ ko publier ku ko publier wul nag mm-hmm. ñu xam ne nag kii. presse bi ñoru ko mm-hmm. presse bi ñoru ko leneen naka ñor feneen leneen lay def mais vraiment bokkatul ci taskatu xibaar yi parce que nag. il faut que ñu protéger suñu métier. suñu métier mais la vitesse supérieure vitesse supérieure bi nga xam ne moom la gars di di di xaar ak bu fekkente ne xëy na au cas où c' est juste des probabilités euh, peut-être déglu ñu euh, kañ la. xam nga nee naa la am na ay rencontre ñuy def le mercredi. dañuy def rassemblement boo xam ñu ngi ko tuddee conseil des médias. Mm-hmm. à la mm-hmm. boobu noonu dañuy ñaan gars yi yëpp. ku am activité buñ ko couvrir ñu daje foofu ñun 10 heures ñun ñëpp. Mhm. ñu manifester wax en tout cas li ñu metti ci métier bi. Mhm. génne vraiment li nekk suñu xol. est-ce que mënuwul leen ko demander aux différents personnes yi ci yi ciy participer ñu def ko diggante 10 heures ba midi xëy na mën nañ ko reprendre dans les. non dañ koy def direct dañ koy def direct ci yëpp. loolu la ñuy ñaan site yeeg rajo yeeg télé yeeg ñëpp dañ koy def direct. incha allah incha allah euh, tey euh, Pape Sané bu fekkee ne lii am na euh, ñëpp jàpp nañu ne pour xoqatal taskatu xibaar la pour noppi loo leen pour dootuñu lëj mbëtëri dootuñu waxati ci luy dox ci seen réew bàyyi nit ñi ñu def lu leen neex ñu ne leen taisez-vous Euh, on fait ce qu'on a à faire on vous vole on vous pille et taisez-vous quoi te journaliste li ñu ko xamee woon moo di dénonciation oui en tout cas c' est un coup léegi nag je crois que euh, par rapport ak lii sa wax ak euh, réunion bi nga xam moom lañu tenir je crois que la riposte sera à hauteur de l'affront parce que tamit c'est un affront hein. les mots il faut pas. mais la riposte également euh, voudrait que si liggéey bi mi mu nekkoon moom Pape Alé qu'on s'arrête pas qu'on continue à fuiner. Mm non non fuiner moom mënuñu ko tere kenn parce que ça c'est l'essence même du journaliste quoi waaw ouais, ouais. c'est l'essence du journalisme kooku moom. xaw ma yow yaa yow laa déggoon nga naan euh, mënuñu dox waruñu dox suñu xel. <laughs> di ñu bëgg indil des histoires de confidentialité alors que tous ce qu'on traite tous les jours relève de la confidentialité. Mm-hmm. xam nga dafa am li nga xam ne awa ñun ñoo ko mën a may suñu bopp. gannaaw bu ñu ko constitution ah. le code de la presse may ñun ñoo ko mën a may suñu bopp c'est comme des fois quand on dit euh, ñii di réclamer seen indépendance alors que les textes ont organisé leur indépendance donc am na li nga xam ne ñun ñoo ko mën a may suñu bopp par rapport à cette affaire là mhm. je crois que poser les actes comme nañ ko waxee nii c'est déjà un fait Euh, qui va être euh, euh, très pris en charge par kii nga xam ne mooy président la République parce que nañu remarqué également am un